wax ci kaaw Cheikh Yérim Seck ak jamono ji euh, mu mel ne gis nga euh, yoon tegoon ko loxo ci lu wax ci wàllum su leer loo xam ne coow la fii ci réew Sénégal bati plus ak yeneen yu mel ba jural ko convocation est-ce que convocation yow bi nga ko déggee nag nga ko gisee. Euh, ci ci régime Macky Sall rek ngay gis arrestation yu étrange ci régime Macky Sall. Macky Sall il président boo xam ne li mu jàpp ci ay nit maanaam dootuñu ko décompté ci Sénégal parce que ñaanatuma sax ñu am président bu bu mel ni makisal Sall euh, ku mel ni Cheikh Yérim sekk dib journaliste amaana kat moom ba muy wax lu ko arrangé mën nañ ne kat ah booba laaluñu ko wuñ ko waaye dafa wax dëgg te réew mi kuy wax dëgg la ñuy bañ fii ñu nekk nii amuñu sécurité mën nañu fekk fii jël ñu yóbbu ci journaliste ak leneen lañ ci yemal loolu day wane recul recul bi am ci Sénégal te jàpp jàpp yooyu nga xamante ni ay jàpp yu kenn xamul la jàpp ni def nii tiital intimidation ba pare bàyyi la loolu. dégg fi ñoo xam ne wax nañ coow dorog ay député ay nangam sa kenn jëliwu leen. parce que euh, kumba am nday ak kumba amul la Macky Sall yore réew mi tey boo xoolee boo fàttali ko Mame Mbaye Niang ca lañ ko tuddoon kenn jëliwu ko pourtant yu gën a yees loolu la ñu bokk ci wala ñu bokk ci ku jéggi di wax ñu dem jëli leen parce que ñooñu la Macky uuf ñi mu uuful moom ku ci wax dana la karawaase. da ngeen di abonné fii si a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam